mbokk yi asalaamaaleykum wa ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziar ci seen jataay bi ñu duppee Touba ca kanam ñu di ci ànd ak yéen waxtu wu nekk rek ci lépp loo xam ne nii jàpp nañ ne yittey askan waa nga ca tey nag ñu ngi ci barab bu am solo boo xam ne dafa mel ne du ñu koy bàyyi xel waaye mooy station bi nga xam ne état du Sénégal moo ko fi def 2016 ngir lan ngir ut luy nuru saafara ci assainissement eaux usées yu Touba Touba la deuxième ville du Sénégal di nga xam ne sur le plan démographique li fi yeewoo ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll mbokk yi te amul assainissement ñu ne nañ wut solution en attendant daal di tabax fii station bi ngir lan auto vidange yi am fu ñu tuur seen ndox ndax ci mbedd mi lañ ko daan tuur loolu day indi problème mu santé publique waaye mbokki station bi bi ñu ko fi defee it dañoo yéewanal payoor gi ba nga xam ne daanaka mën naa wax sax ne fay ñu ndax oto bi lu mu rëy rëy rëy bu fi tuuree du weesu mille francs yaakaar naa loolu ak yombala a nga ci waaye mbokk yi nañ wax ci auto vidange ndax jotul ñu xool yan norme moom la auto vidange wala mel ngir mën a dem di jël ndox yooyu di traversé dëkk bi di indi fii di ko tuur ndax dañoo war a seetaan rek auto vinage boo xam ne day mel ni robinet topp ci mbedd Touba yi balaa moo yegg si fii li ëpp ci ndoxam bi mu bàyyi ko ca dëkk ba lu gën a garaaw nag amul ndax dañ koy noy mu jur jàngoro yoo xam ne kenn nattablewul li mu mën a yàq ci dëkk bi mbokk yi ñaareel bi sellange ci dëkk bu sell bii di Touba am na ci yoo xam ne nag dañ cee war a taxaw li ci gën a garaaw nag mooy gannaaw bi ñu defee effort ba def fi barab boo xam ne ni mën nañ fay tuur am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw ba ci mbedd yi ñoom naan dafa tëjëg walla xaw ba lu ñuy taafantaloo ñëw lañu ñu yaboon ci ay tooke ci mbedd mi lañ koy tuur mu ngi nii gis ngeen xam ngeen ni lii jekkul lii jaaduwul service d'hygiène nañu jël seen motukaay donte sax xëy na ñoom mooy yi ñu war a am amuñu ko waaye nañ jël seen motukaay gendarmerie police commune bi nañ jël seen motukaay ñëw saytu lii ndax lii kat danger public la ndax santé publique la ndax lii li gën a garaaw mooy boo woowee fii dañu koy noyyi bu ñu ko noyyee ndax diggante bi ñu fi duggee ak bi ñu fiy génnee rek man yëg naa ci sama yaram loo xam ne fii nag noyyi fi sax dafa wóorul léegi nag bu fekkee ne ay centaine de camions ñooy tuur ngelaw li di bëgg a jël du ñu di ko noyyi sëñ bi lii dañu cee war a jóg looloo tax ñuy attirer attention kilifa yi nañ jóg ci ñiy tuur ci mbedd mi jekkul jaaduwul nañ jóg ci auto vidange yi nga xam ne bu ñu xësee ba yëpp dañuy tuur li ñu yor yëpp ci mbeddi tubaay yi ñu ngi nii ngeen koy gis ñu topp leen dañuy ñëw ba ci booru jumaa ji teggi la ñuy def waaye Touba ji Touba moom fépp jumaa ji la moom waaye li gën a garaaw nag mooy ñëw ba ci station bi nga xam ne dañoo def xaalis bu bëri def ko fi nga war a mun a dugg fay lu néew ñëw tuur fi nga ñëw ba ci mbedd bi nga dew tuur ko fi loolu moom kenn xamul la muy nurul moom yaakaar naa nag kilifa yi war nañ cee jóg looloo tax ñu bàyyi leen ngeen xool image yi te ñu jël ci ay mutukaay vraiment il est temps ñu régler problème bu assainissement à Touba assainissement eaux usées yi nag laay wax man waaye lii yëpp mbokk yi lenn dong rek mooy solution bi jot na taalibe yi Serigne Touba yi Cheikh Bamba Bamba xam na yoon wi du yoonu xaaraate Serigne Touba xaarul woon sëñ Modou Moussa xaarul woon kenn musul xaar ci yoon wi waaye lu tax ñun mënuñoo jóg taxaw ci defar assainissement Touba waaye yow milliardaire Serigne Touba yi ñuy wax barke Serigne Touba bu yaatu bii ñuy wax xéewal gi ñu Serigne defal waa ñun lu tax ñuy xaar ku ñu defal assainissement ba ñu jël sunu ndox yi di ko tuur ci mbedd yi ngelaw li di dellu siwaat ñu di ko noyyi mu di ñu jural ay jàngoro yoo xam ne nii kenn du xam foo koy fajoo ndax lan dañuy xaar ku ñu gasal ay canalisation dañuy xaar ku ñu drainel ay eaux dañuy xaar dañuy xaar dañuy xaar ba kañ moo ne yow mii de sa kër gi tabax nga ko de ba def ko air plus nangam ko da nga koo waaw vingt cinq mètres yi wala sept mètres cinq yi nga xam ne mooy sa buntu kër waaye mënoo ci def assainissement boo ko defee sa morom def ci keneen def ko bu yàggee mbokk yi ñu am saafara ndax lii kat xam ngeen ni ndax gis ngeen bassin yi fees na bu màggal jotee day gën a garaaw donc dafa jot ñu toog xalaat ana nan la ñuy def ak autovidange yi nga xam ne waratuñoo vider di traverser sembe yi di ko tuur ci dëkk bi. ana nan la ñuy def ba saytu ba nga xam ne lii ñu fi def ngir ñu vider fi nit ñi ñëw du fi vider waaye nag solution bi mooy nan la ñuy def ba assainissement Touba ñu regle ko une bon fois pour toutes loolu nag jàpp naa ne ñun mburit yi rek ñoo ci mën dara te kenn ku ci nekk Serigne Touba defal na la loo xam ne nii war ngaa mën a bàyyi xel nag nu ñu aaree suufam si ak dëkkam bi ba lépp di sell te solution bi mooy assainissement te lu war a mën a nekk la te mën naa nekk ndax mburit yi yor nañ ko. bu ñu waxtaanee ci Serigne Touba nga yuuxu daanu mbëkk miiri loo yoroon di di di di wane euh, ab am-am di may alal ju jeex te yow bu ñu nee Touba dañ fiy lijjanti dara sa yoon newu ci ndax assainissement lu ñuy suul lay doon waaye sëñ Touba gis na ko de mais problème de santé publique la moo tax ñuy attire attention autorités yi nañ jël seen matukaay.